formation bi ñu ko amee ci benn kuréel bu ñuy wax euh, Manos Unitas muy nekk benn kuréel mu am ko moo di gouvernement Sénégal parce que convention euh, bu ñu signé euh, waa Espagne bu ñu signé ak Sénégal moo tax xaalis bi dugg fi ba réseau moo ko am donc am nañu financement bi projet bi nag si ñetti mbir lay yëngatu mbir bu njëkk bi moo di day jox xale yi kattan ci xam-xam jàngal leen ba ñu mën a yore seen euh, activité euh, activités yi nag dafa nekk ay activité yoo xam ni activité euh, càmm la napp ak mbéy ak transformation mais loolu yëpp nag mu basé wu ci environnement bi mu respecté ko donc en même temps deuxièmement aussi moo di day day dimbali xale yi am lépp lu ñuy soxla ci jumtukaay pour seen liggéey dem kanam war nañ soxla une formalisation am ay kayit yu wóor pour seen entreprise taxaw war nañu soxla lu ñuy wax ni business plan mooy ay ay ay jumtukaay yoo xam ni dina natt seen liggéey fan lay jëm fan lay toll niñ ak yooyu pour partenaires techniques financiers yi mën a ci toog ok mën ci basé wu pour jox leen ay ndimbal walla kii beneen ñetteel ponk bi moo di day day dimbali. ce qu'on appelle la mise en relation dañuy fexe ba xale yi si seen activité ñu boole leen ak ay ñuy joxe koppar si mun a nekk lépp mun na lekk subvention pour ñu mun a euh, euh, am foofu ay koppar pour seen liggéey gën a gën a suqoot donc teg dafa nekk aussi activité euh, kii projet boo xam ni bu cible lu mot ñaari téeméeri xale ñaari téeméeri xale yi juróom fukk yi téeméer yi jigéen lañu téeméeri yi góor la donc cinquante pour cent Euh, de jeunes fii ak cinquante quatre de jeunes donc loolu la te projet bi aussi dafa tasaaroo si suñu neuf coopératives yi ñun suñu neuf coopératives yi ñu ngi leen di amee kenn benn bi mu ngi koto si Tamba benn bi Sédhiou benn bi Koungheul benn bi euh, Sibassor si Kaolack benn bi Djilor si Fatick benn ñaar ñi Mbour ak Tivaouane si région de Thiès am na bu nekk Louga am na bu nekk euh, Ndioum fële si dans la région de de Saint-Louis donc foofu la jële xale yëpp andi leen te aussi ku nekk. ak sa martaba euh, sociétariat noo toll coopérative noo toll ci ay membres ci la ñu def euh, sélection basé wu ko sélection bi aussi dañ ko yaatal euh, def de manière vraiment démocratique taf ay ay ay ay ay kii appel à candidature wax xale yi wax ko ci rajo taf ko ci communes yi pour am na ay xale yu bëgg jël ak yooyu donc kun ñu def seen demande Euh, amoon na ay critères yu bëri ñu def ñu xool critère ñu def sélection donc xale yi ñu choisir nekk nañu ay xale yoo xam ni am nañu niveau bi aussi euh, am nañu pas-pas bi parce que ñoom ñoo ñoo wane seen pas-pas pour bokk ci mbir mi donc en gros suma dool bi euh, bon formation bi ay formation yu bëri la juróomi juróomi weer la la war a jël bii c'est le premier groupe dina am yeneen fii ñaari groupe élevage la ñaari groupe mbay am na benn groupe transformation am na benn groupe aussi euh, prestation de service. Wolof man Saliou Seye laa tudd man ma yorul wàllu formation ci Resop tey dañoo daje woon fii pour présenter wala pour lancer projet bi nga xamante ne dañoo bëgg a tàggat ñaari téeméeri ndaw muy ñu téeméeri jigéen ak téeméeri góor yoo xamante ne ñu ngi jóge suñu coopérative yi ñëw fii war liggéey lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu mbay bu ma nee mbay nag mbay mu mbayu euh, gàncax yi ñu ngi fi mais aussi. production animale maanaam lépp lu jëm ci wàllu élevage ak transformation ni soppale mais aussi ak service nan nañu fexe ba jeunes yi di mën a basé wu seen zone di mën a jox ay conseils seen yeneen naataangoo yi aussi di leen jaay ay produits agricoles donc 200 euh, la yoo xamante ni dañu leen jàppale former leen fii ba pare mais jàppale leen sur le terrain jox leen ay jumtukaay ba pare topp leen ba seen entreprise yooyu ñuy taxawal mën a mën a baax. li ñu mais ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci ba pare donc ay ndaw yoo xamante ne ñu ngi ci activité bi ba pare donc li ñuy def rek mooy professionnaliser li ñuy def gën a yokk ay xam-xam ba pare accompagner leen donc sur aspect technique bi aussi sur aspect entrepreneuriat bi ba seen entreprise yi mun a dox incha allah. oui tout à fait je pense comme c'est ressorti lors des du conseil présidentiel dernièrement tenu à Thiès ces euh, Thiès constitue en fait un, un véritable hub en matière de formation. Euh, il suffit que convaincre, je pense qu'il suffit de voir le nombre d'universités qui sont dans la région, mais également le nombre d'un centre de formation et d'instituts qui s'occupent d'emploi de, de, et d'agriculture de manière globale. Pour s'en convaincre, il suffit de citer le cas de l'ISEP, qui est venu aujourd'hui assister à la formation, euh, qui nous réunit dans le cadre d'un projet de renforcement de l'entrepreneuriat des, des jeunes ruraux. euh, basée sur les techniques durables et résilientes au changement climatique. Donc je disais tantôt que euh, la création d'emplois constitue l'un des objectifs prioritaires du plan Sénégal émergent, comme vous le savez. Et dans ce cadre, suite à une étude qui a été dernièrement euh, faite, euh, il y a dix, quelques années de cela, il était ressorti que parmi les contraintes auxquelles les jeunes sont confrontés actuellement en matière d'emploi, c'est le faible niveau euh, entrepreneurial. Et je pense que c'est pourquoi, quand on a vu que l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, sur l'initiative du RESOP avec le financement de, de, de l'ONG espagnole, euh, constitue quelque chose qui cadre parfaitement à la politique de l'État, parce qu'il parle d'entrepreneuriat en milieu rural, c'est vrai, en milieu rural, et basé sur les, euh, la, les, la, la, la durabilité et les changements climatiques. Donc c'est fort de cela que nous avons tenu quand même à venir représenter le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire dans le cadre du lancement de, de cet atelier. Euh, je disais tantôt que c'est vrai que le secteur de l'agriculture de manière globale, quand je parle de l'agriculture, c'est l'agriculture avec grand A, constitue l'un des secteurs pourvoyeurs d'emploi dans le cadre du, du, du plan Sénégal émergent. C'est dire tout le plaisir et vraiment la satisfaction avec laquelle Nous avons tenu à venir ici, euh, venir dans le cadre du lancement du projet qui nous réunit dans le cadre de, de nos partenariats avec le réseau.